sant avant tout le président Macky Sall ndax ba ñuy ànd ak moom démb la woon tey soog a ñëw di sant ñi nga xam ne nii ñoo fa newoon ba nga xamee ni mi ngi fay ñëw ndax yàlla dafa def jamono boobu mu fekk ma ak yëfi njaboot mu fekk ma seen wet sama njaboot soxla woon ma mu fekk ma seen wet ba mu fay ñëw fekk ma fa muy lu rafet lu may rafetlu nag ndax. mel na ni woon maa ngi foofu ndax sama nit yi nga xam ni ñoo fa nekk maanaam lépp lu fa xew ñoom ñoo ko fa def accueillir nañ ko ni mu waree comme ni ñuy accueillir buur muy visite boo xam ne visite bu njëkk la nag ci doomu ndeyam le président Ould Ghazouani muy visite boo xam ni bu am solo la ci ñun moo tax teeru ba teeru ko teeru bu mucc ayib loo xam ne mosu faa am am fa donc ma leen di sant bu baax di leen gërëm. ci leneen li nga xamni nak mo fa am muy euh, vraiment euh, loo xam defal na ma muy teranga bu reuy lu mu ma defal taxaw ci dig askan bi yeb defu ko ci wetu ci parti bi kese mais ñepp la wo dajale len ci ab sal ñuy waxtaan mu sante ma gërem ma ci lo xamni ni jappale bo xamni xam nañ ko ko jappale ci Mauritanie du man kesse wa Mauritanie yeb ndax ñun de suñu jëmi jamono nii liggéeyal nañ ko loo xam ne lépp lu mu bëgg dina ko am ci kàttanu yàlla mu nekk ñun ak mu nekk ak keneen ndaxte euh, yàgg nañ ko jàppale démb woon tey soog a ñëw donc tey su ñëwee tey gis ni kat samay fonction yi nga xam ne am naa ko tey euh, vraiment tax na ba ñu war a def ay yeesal yoo xam ne ak ay coppite foofu ci parti bi donc loolu ñun dañ koy rafetlu may fàttaliku aussi que ni bind am na ay bataaxal yoo xam ne jot nañ ko ko bind doon ko ko expliquer nañ nag loolu mu wax noonu ñun dañ ciy ànd ak moom à 100 pour cent ndax président waaw la tudd dama tax nag ña nga xam ne nii ñoo fa nekk nee naa leen ñu xaar ba ma ñëw lépp loo xam ne nii ñu ngi koy wax wala ñu ngi koy def ñi nga xam ne ñoo àndoon ak man démb ak bërki démb ñu toog ñu waxtaan ñu xool naka la ñuy waxtaane ba gindi konté loolu la moo laa lay wax ni même bi muy dem États-Unis sama collègue honorable député bi nga xam ni mooy Aboubacry Diallo bindal naa ko lettre jox ko ni ko boo demee nga jox ko ndax man luy avancer partie bi rek moo ma yëkkati ndax nit euh, maanaam am na fooy tool say activité ak say yëngatul ak sa liggéey dootul a may la nga jot ba nga daan am nga koy jot waaw loolu nag euh, maanaam man de fi ma toll nii la ma leen wax mooy lenn mënuma cee def benn communication tant que demuma jàkkaarloog ñi nga xam ne ni ñoom laa àndaloon démb ak bërki démb waxtaan ak ñoom ci loolu lépp loo xam ni nag euh, tënkee nañ ko fa bu soobee yàlla dinañ ko ko eggee wax ko ci suñu xalaat wax suñu xalaat tamit ci nga fa nga xam ne nii mooy parti bi ñu wax leen yëgal leen li nga xam ne ni ñun moom la ñu décidé ak naka la ñu mën a continuer liggéey bi nga xam ne dañ koy continuer liggéeyal président Macky Sall parce que liggéeyal président Macky Sall nag séntu asamaan jarul buuxante kenn ku si nekk foo nekk mën nga kaa liggéeyal jàppale ko ba li nga xam ne nii mandaa bi nga xam ne nii moom lañ ko fal mu eggale ko ci jàmm ak salaam bu ci jógee nag lépp loo xam ne nii sant nañu ko ñu xool naka lañ ciy taxawee.